Oh, rupture tribune yéen naan maan moo ne rupture bi nangul na nag njaboot gi daal di dugg ci gestion étatique bi yéen kaay des médias bi naan maan nomination yi mi ngi mel ni tulleeg màlle ci réew mi waaye nag ma ci régime bu yees bi yéen kaay des médias naan maan Serigne Gueye Diop et famille ña ca cabinet familial ba doomu ministre des affaires étrangères Yacine Fall moom itam ñu tabb ko l'observateur naan maan nomination yi de boo moytuwul a njaboot gi ñuy dugal ci gestion publique bi la ñu doon jiiñ di ko jëfee fi mu ne loolee wara a mën a am conséquence yéeni kaay bi naan ma déet jeexagul ndax nag buukar Diouf dañu ko tabb ba defal ko docteur yéeni kaay bi naan maan wër nañu fu ne fu mu nekke médecin mooy jiixi jaax gi ci réew mi Le Quotidien Le Quotidien naan ko ndàq gaa ngi mel ni tulleeg màlle ci réewum Sénégal Mamadou Lamine jàlloo ñu jëlee ko ca ENA ndax ay jiixi jaaxa yoo xam ne am na kook ñu ko féete kaw coordonnateur woon bu agropoli jililoo naqar lu bi nga xam ne dañu ko weñ daal di koy dàq les éco yéen kaay naan maan moom Djily Lo ci boppam dafa am contrat bu ko lié ak bu Sénégal ba 2028 ministre bi proposé ko poste conseiller technique mu lànk ñu remplacer ko nag bëgg koo forcer passation de service direct news mel ni ku naan wax ji na yàllay tax lii président Diomaye def dàq Djily Lo mii ci décret amul lenn loo xam ne tax na ci suuf poste biñ ko remplacer di coordonnateur national bu agropole ci yoon lañ ko teg en toute légalité yéen kaay bi naan maan nomination bu mujj bi te conseil des ministres la amee woon 2023 tegu ci baat moom président Diomaye nag ci loolee président Macky Sall defoon ngir tabb ko ca la wéeruwaat ngir tebbi jiili mi lan moo tax tey moom jiili ci boppam ñu tabb ko ci décret présidentiel faase ko nommé waat ko faase waat ko mu ne day def bruit di def tapage du jàll turbine naan kon waaye la jàll te mu naqaree jàllale mooy njaboot yi nga xam ne ñu ngi leen di nguufaan jël ay famille di leen tabb ci alaluk askan wi 24 heures yéen a kaay jox kàddu Ba bu Pastef muy xam le nii boo fekkee ab ordinateur mu tàmbalee biiju te ba nga xam ne ca ngay liggéey waa da ngay soppi pièce yi ordinateur bi ci boppam ngay suppi Amadou naan xam nga lan la coowal compétence la ñu war a wax waaye fi mu ne dépassé nañu coowal te bu a xeexaloon ba muy metti topp sama gannaaw laas yéen kaay naan maan ña nga roñ roñi it waxtaanee yaatalu conseil supérieur bu magistrature ñoom magistrat yi ci boppam ànduñ ci au conseil bu justice la ñu bëgg ñu tabal leen ko ci réew mi tribune yéen kaay naan maan en tout cas ña nga roñ roñi jëm boo xam ne day sayal assemblée nationale nag rafet lu xalaatu président Macky Sall jàll docteur Mbaye Cissé naan seyal assemblée nationale fii ak fanweeri fan ak benn ci weeru suliet baaxul ndax fukki fan ak benn ci weeru ut te am sañ-sañ tàqalikoo ak député yi sursoi naan kon coow li de mooy ña ngab lël boo xam ne wàlluk assemblée nationale lañ fay waxtaane te lañ fay waxtaane ma nga tënku ci lenn képp kottu moom moo di nag soppi règlement intérieur bi gannaaw travaux yi ba nuppi dees na teg ab proposition de loi ca table ba ñu ko ca assemblée nationale soppi règlement intérieur bi nga xam ne moo indi woon boña lu toll ci juróom-ñaari téeméer ci ay xëy moom la tàbbal géej lu toll ci ñeenti téeméer mu yóbbu leen chômage Walf Quotidien naan kon fi mu ne diggante Ndakaar ak Abidjan crise diplomatique léegi mu am ca lépp bàyyeekoo ci parlement bu CEDEAO Les Échos naan kon nga jàpp it ne collectif concessionnaire yi ñiy an yi nee ñu dinañ banque seenug loxo tambali ko ci alxamis gii laas yéeni kaay naan maan booba ca APR borom doole yaa ngay daw ndànk-ndànk yéeni kaay bi naan maan APR mu jëm jaaxle nag war na caa juddu ndax nag na ni tàqalikoo président Macky Sall ci boppam moo ñaaw gannaaw fukki at ak ñaar goo xam ni nekk nañ ci nguur gi opposition bu yees bin tàbbi ci boppam la ñenn ñi mënta muñ njortu nag ne moom président Macky Sall ci boppam moo leen wor ñu roñ roñi nag tàbbi daw ca gannaaw Amadou Ba l'info yéene kaay naan maan fi mu ne kay Abdoulatif Coulibaly moom it xamle na ni tàggoona yóbbal ak président Macky Sall te it di xamle ni Amadou Ba bu taxawalee ab partem politique ca moom la jëm ci lu soxal nag président Diomaye bi ci nguur gi tàmbali naan dara mi ngi doog a yegg si ci nguur gi situation boo xam ne nag pare wu ca woon waaye jàpp na moom Abdou Latif Coulibaly ne jomaay dana ca ne ma nga naan kon la ma marqué ci moom mooy am na retenu dal na te nekkul nag ci posture defante kenn xanaa kay tempéré rek dalal la nekke ci réew mi lan nag moo ko nar a yàqal moom moo di diggante président Bassirou Diomaye fay ak premier ministre Ousmane Sonko faaw ku ci nekk ci ñoom xam càttug réew mi fam ko yem loo mu fa bés bi le jour naan kon ci téeméeri fan bu président Diomaye yi Mario Mbodj naan Jomaay ak Sonko fan leen tege woon matal nañ ko te xel yaa ngi dal bilan ba positif na donte xeer yi bari nag fa xastalu gi tribune sport naan maan ak lu mën a am diggante Balla Gaye ak Tafatin ni ki démb am na moom Balla Gaye dóor Tafatin ba maar day taali ne coppet géant bu bawol bi teg ci suuf la lëndëm ca soow ma moom moo di photographie ci boppam dañ leen tere dugg ci arène nationale ñu fas yéene nag kalaame Balla ci boppam dafa duma Tafatin daal di koy daan ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm tey ndoog Sénéguindia, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal, vous a offert votre revue de presse. Sen TV.